Bonsoir euh, à toutes euh, et bienvenue dans Actu Navetan sur Kebemer TV, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur les matchs de Navetan. KBMR CNP 2024 di leen jaajëfal bu nous a suivre direct bi doxoon na ci diggante ASC euh, Jamono ASC Laman gi ak ASC Espérance mu nekkoon euh, tey euh, le 1er euh, septembre ci stade docteur Issa Mbaye Sambou laata ñuy xuus ci match bi dañuy dem suivre temps fort ASC Bokk Xalaat Espérance 18h la ñu suivre coup d'envoi bi doxoon ci diggante les rouges blancs ASC Bokk Xalaat ak Espérance ASC Bokk Xalaat moo ko dóor benn bal ci dara ñu suivre temps fort yi laata ñuy ñëw ci réaction coach bi kon but temps fort 45 minutes de jeu la football def 0 but partout dugg ci vestiaire yi euh, euh, minutes de jeu ci le AIC Bokhalat euh, retrouver filet yi dugal mu ndamam lu ci compétition bi ñu Alors ça, franchement, ça doit te faire plaisir par rapport à notre ligue à ne dégg de moo xaar championnat effectivement vraiment je suis très fier de mes jours donc je suis très fier de mes tardivement mais je suis très fier de mes jours vraiment je suis très content alors nous avons aussi donc ben coaching bi parce qu'effectivement, effectivement euh, le numéro 5 bi nga xamante donc nga à la 72e minute 9 minutes plus tard donc à la 81e mon moo di franchement ça aussi donc euh, nous nous demandons donc bah, tu as pensé donc dugal coco pour que franchement nous nous libérer l'équipe effectivement effectivement moi je le connais bien je pense que c'est un outsider physique c'est ça qui a fait que nous dugg après alors donc euh, voilà vous êtes maintenant donc à 4 points pratiquement vous êtes donc qualifié pour les huitièmes maintenant donc vous allez chercher juste la première place effectivement on est là pour gagner hein. on est là pour gagner pour gagner le trophée <laughs> donc euh, rendez-vous très prochainement pour votre D'accord, d'accord, merci. Merci coach. Merci mon ami, mon ami Aldo. <laughs> voilà mon euh, réaction coach IC beaucoup di ndamam lu compétition premier match am ak Liberté mu donc nous déglou coach AIC Espérance. C'est l'AIC Espérance qui vient de tomber face donc à l'AIC Khalat sur le score d'un but à zéro. A savoir qu'exactement pour votre première sortie, c'était un match nul contre bien sûr l'AS euh, n'est-ce pas Aujourd'hui, euh, donc vous tombez face à Khalat. Vous avez tenu bon, mais malheureusement donc un but à zéro. Donc vraiment l'Almoseyer qui par rapport à que franchement donc euh, ce résultat. di wax ni ci a sport la ñu nekk parce que dañoo wut si Mon sur malgré à 0 mais équipe ils n'ont pas mal mérité quoi mais c'est bon c'est la loi du football parce que compétition euh, donc nous qu'effectivement tu as donc juste un point nous match forcément il faudra donc une victoire pour donc points est-ce que c'est compliqué par rapport à championnat

benn bal ci dara donc doon ndam lu njëkk pour ASC Bokk Xalaat jaaxle jeex na ci wàllu électrique fii ci Sénégal doomu réew mi di Alioune Badara Sylla nekk fii ci Italie bi entrepreneur bi taxawal entreprise bi di Silispet Silispet day yëngu lépp lu jëm ci wàllum installation électrique di la trancel plan électrique jaay la matériel lu ci mel ni lampe parasolaire apprise électrique contact électrique ak mboole matériel boo xam ne soxla nga ci sa biir kër lu jëm ci wàllu électrique liggéeyal la ko nag wala ñu boole laa ku nu ko liggéeyal Silispet day def libération fépp foo mën a nekk ci àdduna bi yow mi bëgg matériel bu wóor te garanti ci wàllu électrique jokkool ak waa Silspet wooteel ci numéro yi 00 221 78 470 60 93 yow mi nekk bitim réew bëgg a jokkoo ak waa Silspet wooteel ci double 0 39 339 632 32 90 boîte email bi mooy sile point spet arabas gmail point com site internet bi nag mooy 3w point silspet point daal lañu taamu ndax matériel bu bi deuxième match bi doxoon ci diggante ay AIC Jamono ay AIC gi nekkoon première sortie AIC Lamangi vingt heures la ñuy siffler coup d'envoi bi di leen fàttali nag tey match bi xawoon na am tuuti retard ak ay taw yu am doole yu nekkoon na euh, ba taxoon ñu arrêté première match bi ci stade bi donc euh, moo amoon tuuti retard ci deuxième match bi ñu suivre les coups d'envoi bi football 10 minutes de jeu ASC Jamono dougal ñu footballaat touti ASC Jamono la cause pour laquelle wa ASC Lamane gi génné sen gardien dougal benen gardien ñu suivre temps fort oui. ak la ta ñuy continuer voilà di leen jaajëfal mu nekkoon euh, match laman gi jamono donc dañuy déglu coach ASC jamono bi mu amee moom tamit ndamam lu njëkk ci compétition bi BSD, Babacar Sele le coach bien sûr de l'ASC Diamano qui vient de s'imposer face à l'ASC Lamangui, 2 buts à 1. Première sortie hein, donc euh, euh contre ASC Espérance, Moudafouane 1 but partout, Tay Mouda 3 points I. Alors carrément, coach Lolo Arnaud Def Sembekte. Wow, dañuy sant Yalla tout d'abord parce que c'est pas évident ngay liggéey ak ay nit. liggéey boo xam ni ligue da nga booy da nga war a am objectif quoi ñëw nañ suñu première sortie ak nit ñëwee waxon a ko la fois passée paré wuñu won et que ñun ñun xamoon nañ ne paré wuñu won parce que bo dé joué à 11 6 contre 11 parce que nous la ko mënon 6 contre 11 donc yalla may ñu jital équipe dem ba dernière minute mu égaliser donc day am ay quelques réajustements yo xam dañ koy def donc tay ñuy ñëw ànd suñu équipe te ba légui limay wax rek dañ nek ci phase di defar ba légui paré voilà parce xamna tay ngeen ñëw indi seen équipe on a vu même le retour de Jelani Diallo. mi nga mhm. xamante donc moy capitaine ou bien sûr équipe bi alors momi tamit donc on sait très bien qu'un sociétaire donc du Barguette mhm. am na poids donc ci biir équipe bi. voilà suite à sa blessure parce que dafa dafa blessé on à l'épaule mhm. dañu obligé forcer ko bo gisee sax dañu mi-temps rek ñu génne ko parce que dañ doon xalat condition physique am ndax mais heureusement qu'il qu'il s'est débrouillé et puis dafay a ni leadership am lay wone si équipe bi wone ni mom il a sa place dans l'équipe et il est le le le capitaine de l'équipe donc duñu wax félicitations à toute l'équipe de l'ASC Jamono et que di wax ni yow koy dañuy defaraat rek ba légui ci phase défar lañ nek alors Samba Jamono 4 points donc euh, pratiquement voilà donc euh, qualifié maintenant xanaa donc euh, li Jamono di wër moy peut-être la première place de la poule bon ni rek on va préparer match match par match. génn nañ si Espérance ñëw nañ si Lamane gi donc dañuy préparer Liberté sûrement pour le 5 wala week-end bi. Mhm. après pour ñu mën a dem si et puis suñu objectif moom mooy dem. final jël premier génn suñu poule dem. parce que bon gis ñu benn équipe boo xam ni tey si Kébémer wala si suñu poule. Mhm. war nañ ko tiit parce que tiituñu leen. très bien voilà. merci c'était le coach bien sûr n'est-ce pas donc euh, c'est le Diagne de l'ASC Jamono merci. voilà mu nekkoon réaction coach ASC Jamono donc voilà dañuy déglu coach su ASC Lamane gi bon bu défait un bu njëkk CNP donc tay la ñëw football première match en première défaite ñu déglu réaction coach bi ak nakala la le deuxième match Nous sommes avec le coach adjoint de l'ASC Lamane donc Habib Habib votre première sortie c'est génn bu euh, face à l'ASC Jamono vraiment donc nga daanu euh, sur euh, ce score 2 buts à 1 Nous disons que vraiment première mi-temps donc xawoon na fait mais deuxième mi-temps bi daanaka yaa doonoon borom ba égaliser donc benn but plutôt donc la score donc benn but mais malheureusement qui un temps nous ñu qui nag Jamono moo 2 buts à 1 quel est ton sentiment par rapport

ni nak la ma doon demee quoi parce que football faaw kenn ki jël ndamlé parce que ñun mini ni ñëw loolu lan programme won gagné mais nak bon loolu moy li ñu bëgg mais li yalla di dogal mom yalla rek mom moko xam très bien ñu gis aussi vraiment tey ñëw ngeen ak ganaw ah parce que gis nañ supporters yu bari yu joggé donc ñëpp doon xaar Lamane gi mm. né donc Lamane Gueye am na un très bon recrutement malheureusement Lamane gi daanu donc 2 buts à 1 alors mu déssé le 3 matchs yi nga xamantene donc war nga ko euh, football ci CNP bi euh, pour en tout cas phase éliminatoire alors da ngay dal di delluwaat gën a defarwaat incha allah waaw noonu lay démé parce que il faut ñu dañoo gën a defar waat gën liggéeyaat

Euh, li des mooy xam nga combinaison bi quoi combinaison parce que aussi tamit bu fekkee da nga am ñoo xamné xeyna ay gan lan minante wuñ ak ñi nga xam ne ñoo fi nek bari ñu ñuy liggéey en général loolu mom day am mais au fur et à mesure ñuy dem di gëna a terrain bi di gëna and di liggéey après après collectif bi day ñëw quoi da fay nek bonne chance donc Habib pour ce match yi di ñëw inshallah inshallah merci merci merci merci grand. yeen ñëpp ñu ngi leen di jaar jërë ngeen jëfaat. merci. voilà mi ngi nonu mu nekkoon euh, les temps forts. Euh, match bokk khalat espérance laman diamono jamono les buts tout cela yéen a koy suivre nonou dans l'actu navetane du lundi résumé li jotona xew ci stade docteur Issa Mbaye Sambou ci Kébémer TV tableau pour D bi mi ngi noonu sur seen écran ASC jamono mo nek ci kaw am 4 points ASC bokk xalaat ci am 4 points Liberté top ci am ben point Espérance top ci ASC laman gi mo ne ca souf dernière place bi moom moko occuper occupé am 0 donc loolu moo jotoon a xew ca stade docteur Issa Mbaye Sambou di wax ne dañuy wéyal le programme bi ëllëg ca stade docteur Issa Mbaye Samb ASC yoon wi moo war a dalal ASC sant yàlla bu première heure jotee 18 heures jotee ASC yaakaar gi tamit war a jàkkaarloo ASC yëgoo bu 20 heures jotee mu nekk ñaari match yoo xam si moo war am demee ci stade docteur Issa Mbaye Sambou ñu war ko suivre en direct sur la télévision Kébémer TV. xaadim mbay jaaja mbay xaadim bu paa jaaja mbay ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ci partenariat bi mu signé ak Kébémer TV donc jënd max ay see yoon wi yëpp ak max ay see yëgoo yëpp nee na da koy jënd en direct pour ñu ko koy tegal mu nekk xaadim Bamba di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di remercier tamit ñëpp ñi nga xam ne si ñi ngi jàpp ci liggéey bi pour mu gën a jaar yoon ak ñi nga xam ne si tamit dañoo bëgg jënd intégralité ak pour seen ay AIC yi ñoo ngi leen di xaar ci service commercial bi mi ngi noonu seen écran ngeen jàkkaar lool 277 244 50 44 service commercial bi mu ngi noonu donc di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne Kebemer TV est là pour vous di len remercier ci sen and bi ak programme bi di len euh, jox rendez-vous euleuk inshallah restez avec nous car Actu Navetan commence maintenant ici sur Kebemer TV ne manquez pas non plus notre segment consacré au classement et aux statistiques où nous passerons en revue les performances des équipes et des joueurs qui se distinguent dans ce tournoi. di leen jaajëfal bu baax a di remercier Mamouri Dieng mi nekkoon ci xarale gi tey di jaajëfal bu baax a baax di ak gars yi jàpp ci liggéey bi yëpp di leen jox dig daje ëllëg incha ak beneen numéro Kébémer Actu DJ Marzo moo nekkoon na ci waxukaay gi jaa ngeen jëf. jaaxle jeex na ci wàllu électrique fii ci Sénégal doomu réew mi di Alioune Badara Sylla nekk fii ci Italie di entrepreneur bi taxawal entreprise bi di Silispet Silispet day yëngu lépp lu jëm ci wàllum installation électrique di la tracer plan électrique jaay la matériel lu ci mel ni lampe parasolaire apprise électrique contact électrique ak mboole matériel boo xam ne soxla nga ci sa biir kër lu jëm ci wàllu électrique liggéeyal la ko nag wala ñu boole laa ku ko liggéeyal Silispet day def livraison fépp foo mën a nekk ci àdduna bi yow mi bëgg matériel bu wóor te garanti ci wàllu électrique jokkool ak waa Silspets wooteel ci numéro yi 00 221 78 470 60 93 yow mi nekk bitim réew bëgg a jokkoo ak waa Silspets wooteel ci double e 39 339 632 32 90 boîte email bi mooy sile point spet arabas gmail point com site internet bi nag mooy 3w point silspet point com silspet daal lañu taamu ndax ndax matériel bu wóor bi ñoo ko yor